ginnaaw bi mu joxee jigéen ñi ay financement defal leen ay formation moom responsable politique APR bi nekk tamit saf bu hôpital Cheikhoul Khadim ba ca Touba moom sëñ Mbacke Faye nag ni ki démb dafa amal journée bu am solo di journée de consultation gratuite jëmale ko suñu mbokk jigéen ñi di bis boo xamante ne bi dañ ciy saytul jigéen ñi seen yaram te duñ ci fay dara defal leen tamit dépistage cancer du sein et cancer du col de l'utérus di leen saytul ba xam amuñu cancer wenn ba xam tamit amuñu cancer bi jàpp njurukaay yi bis boobu nag moom sëñ Mbacke Faye nag dalal na ñenn ci sëtu maam Cheikh Ibrahima Fall yi yëkkati na ay kaddu di ci ñaax ki nga xamante ne bii nag mooy maire bu Mbacke di ministre bu fonction publique di ko wax ne Mbacke fi mu toll nii mooy doon département bi gën a nit kon nak warna naa mën a tabax ay poste de santé yu bëri ci diwaan bi moo ngi koy ñaan tamit mu waxtaan ak kilifa yi nekk ci kaw ngir Mbacke am hôpital niveau 2. moom sëñ Mbacke Faye moomu nag mu ngay wéy di yëkkati ay kaddu di wax lan moo waral bés bi moom sëñ Mbacke fay nag ma ngi wax ne bés bi nag moo ngi ko jagleel ki nga xamante ne bii nag mooy docteur Moustapha Sourang nekk directeur hôpital Cheikhoul Khadim ba ca Touba. moom sëñ Mbacke Faye nag dikkaat na ci lan moo waral mu amal bés bu mel nii jagleel ko sunu mbokk jigéen ñi ñu déglu sëñ Mbacke Faye ci micro Sen 7. waaw ndaje bi niñ ko wootee dañoo gis ni euh, d'abord dañoo nekk secteur yàlla daf ñu liggéey ci fii ci dëkk ci hôpitalu ñu gis ni. jàngoro ji ñuy wax cancer mi ngi def ay ay ay ravage sa dëkk bi ñu ne kat dañuy def politique naam waaye war nañoo def bis yu nga xam ne ni kat danañ fexe dimbali population ñu mën a consulter wu ci lu ñul fay dara parce que boo gisee tey euh, camion bu déplacé wu jóge ministère de la tey bu ñu doon fay depuis ça ak acte yu ñu def danañ si quarante mille tey bu ñu ko parvenu ko fii war a consulter lu toll ci euh, juróomi téeméeri nit loolu moom dama jàpp ni acte de grande nature la bu nga xam ne képp muy acteur politique acteur développement war nga war fii si dëkk bi. oui soxla nañ ko parce que tey jii euh, fi ñu nekk muy bërëb bi ñuy liggéey dañuy recevoir ay ay ay ay nit ñi nga xam ne ni ay cas suspect wala ñi nga xam ñi ngi du nag jàngoro ji te tey da ngay gis ni euh, mi ngi commencé gagné terrain fii ci département de Mbacké kon genre action yi muy ñun muy ku mënti doon. war nga koo mën a def pour soulager la population parce que anticipation la donc dana tax nit ki ñu mën a teel a détecter feebar bi yàlla def na dans le département am nañ service bi nga xam ne ni day faj wàllu cancer bu njëkk dante nga doon dem léegi nit ñi dañuy jóge Dakar ak ci région yi di ñëw faju si pour dimbali loolu nag mooy waral ñu def yu mel nii nga xam da nga teel a détecter feebar bi ñoom bu fekkee day nécessité ñu hôpital suivre leen ñu n leen envoyé hôpital waaw c'est trop cher mais état def na ci def na ci euh, liggéey bu am solo looloo waral euh, ñu am fi service bi nga xam day faj wàllu cancer bu njëkk département de Mbacké mosu ko am bu ko amee avancé la ba nga xam ne ni état teg na ko maintenant état mi ngi def ay effort parce bu njëkk boo daa am cancer dañuy jàpp yow da ngay faatu

qui est en train de faire un travail remarquable. Parce que ce n'est pas évident qu'on puisse démarrer le série rapidement. ça nécessitait beaucoup de, beaucoup de choses. Mais lolo, faire démarrer ko ci lu parce que la population sant waaw loolu dañuy lancer un message rek à l'endroit suñu kilifa muy le ministre la santé ngir mu gestu population xam nañ sa ñu ci waaye tamit maire dëkk bi parce que ñun bi ñuy dem élection dañoo waxoon ne bu ñu joxee dëkk bi danañ fexe def ay pexe ba hôpital bi am hôpital niveau un moom tey il ministre je pense que il la possibilité de permettre aux, à, aux populations de Mbacké d'avoir un hôpital digne de ce nom waxuñu niveau un hôpital niveau deux parce que tey boo xoolee recensement yi génn bu yàgg bu xool département de Mbacké ni muy yokkoo commune ni mu yokkoo tey Mbacké mérite plus waaye dafa am loo bu ñu ko gàll état bi am na loo xam ne ay compétences transférées maanaam mairie tey war na tam ay postes de santé pour nit ñu rapprocher ni ñu ak postes yi ñuy mën a faju à temps loolay waral tamit boo demee fekk nit ñu mais buñu ñu brûler les étapes rek parce que day da ngay xol kenn ko na war def na def li war def bala nga na état état dafa am ay démembrement muy maire maire bi nak dafa ay poste de santé yu doy ñun ñëpp nak ñu japp xex ba ñu am fi ay hôpital de digne de ce nom oui. Docteur Moussa Sourang, comme je l'ai dit tantôt, c'est comme je l'ai dit partout, c'est le père du système euh, sanitaire du département de Mbacké au regard de tout ce qu'il a fait dans le département de Baké, il mérite d'être euh, porté en exemple pour nous, la jeune génération, et pour les médecins. Nous sommes venus, nous travaillons en étroite collaboration avec lui. Il a dépêché une délégation conduite par euh, mon cher ami directeur euh, Baradjah, qui est responsable de ressources humaines, service des ressources humaines. nous, voulons, nous, nous, nous, le remercions vivement pour tout ce qu'il fait pour le département de Baké, mais particulièrement pour le secteur de la santé on a démarré un hôpital euh, nouvellement créé ce n'était pas évident. Il fallait, euh, c'est un long processus. Euh, on peut voir l'hôpital avec le niveau, niveau d'activité, vous pensez que tout a, été facile, mais ça n'a pas été facile du tout. Avec son, expérience et avec une équipe dynamique, on a parvenu aujourd'hui à avoir ce résultat que nous avons aujourd'hui. waaw ñu ngi ko tuddee Moustapha Soura parce que dañu ne moom mooy baayu système santé bu département de Mbacké ku gis at yi mu def secteur santé ak hôpital bi ñu ko créé nga xam ne ni création la bu bees waaye doxil wi koo gis mën nga jàpp lu yomb la waaye doonu lu yomb amoon xam-xam bi ak une équipe dynamique yaakaar naa ne doxin bi dana xaw a sooxe waaye tey macha allah tey daanaka service ubbi na soxlatuñu jógee fenn. di ñëw di di di di génn dëkk bi dem faju fenn léegi ñëpp dañuy ñëw ci dëkk bi di faju loolu nag bu amee c'est parce que nu mu management bu baax la waaye tamit am expérience tamit bu baax ak une équipe dynamique parce que nit ki booy booy liggéey boo gënee bëgg nit ñi li ngay def rek résultat dana am te loolu tamit ci la ñu moo tax ñu jël ko bu doon exemple ci ndaw ñi exemple ci secteur de secteur de la santé Euh, Baké Faye est eh, une personnalité incontournable de l'échiquier politique de Baké. Eh, on ne peut pas ne pas parler de parrainage dans cette euh, Oui, pour le parrainage, ça c'est une question politique. J'avais décidé de ne pas en parler aujourd'hui parce que on aura l'occasion dans les jours à venir pour en revenir largement. On a eu un rencontre récemment un, un candidat qui est Amourouba. Dans les jours à venir, je sais que il est intéressé par ça dans les jours on va revenir largement sur ça. dépistage du cancer du col de l'utérus et du cancer du sein euh, de l'hôpital organisé appui technique en tant que euh, sage-femme pour le moment pour le moment euh, si consultation yi ñu jot def si dépistage bi ñu jot a def consulté nañ si ay femmes yi nga xamante am ay masse si seen ween ak ñi nga xamante ne seen yi am ay jafe-jafe nga xamante ne euh, def nañ ay euh, examen yu gën a poussé ndax bu ñu IVA mooy loo xam bët mën na ko gis ñu koy def bu ñu ko defee gis na li am na luñ ci ragal dañu def benen examen bo xamanteni ne boobu sëñ Mbacke Faye mom moko jël en charge loolu dañ koy dem yóbbu ko ci laboratoire ñu def ko après indiwaat résultat yi kenn ku nekk ñu wax la sa résultat lu ci war tamit suivi bi après dinañ ko continuer ak service oncologie bi nga xamante ne ma dendal moom mooy docteur Maymouna moom moo koy doon def sànq sax bi may waxtaan ak soxna yi doon leen sensibiliser si si xool seen yaram avant ñu koy xamal seen bopp ndax faj bi boobu lay gën a yomb si boobu lay gën a gaaw si boobu nag loolu nekk lu am solo vaccination bi tamit moom moo nekk première sensibilisation bi sa xale yi am 9 ans ba 15 ans képp ku nga xamante ne am nga sa doom am 9 ans ba 15 ans musul sëy kooku dafa wara mëna jël vaccin bi bu ko fee yalla mëna ko ci aar donc lool moy première prévention deuxième prévention moy ku nek dugg ci négocier ak ku mëna doon fièvre bi mëna nga ci baña mucc bon nan ban pexe nga mëna def moy di xol sa yar manam muy dépisté wu di journée yu melni bu occasionné aussi def ko même féké ni journée yu melni nii amul tamit nga dem hôpital ñu defal la ko xoolal la sa ween xoolal la sa bututu njurukaay bëri na torop parce que dañ koo sàggane bàyyiwuñu xé duñu amuñu culture yu dem di xol suñu yaram

Euh, soutenir notre collègue, mais également notre ami et frère, M. Serim Bakefei, qui est le chef de l'hôpital Cheikh Ahmed Hadim, dans sa mission de santé publique, parce que quand même c'est une mission de santé publique, euh, pour les populations de Mbaké et alentour, euh, et dans le cadre de ce, du, dépistage des cancers du sang et des cancers du corps le de consultation, c'est quoi Alors, c'est un dépistage, donc euh, il n'y a pas de motif de consultation. Euh, c'est un dépistage de masse. Nous invitons toutes les femmes à venir euh, se dépister, c'est-à-dire elles viennent, on les consulte et on essaie de voir au niveau du col s'il y a un problème. s'il y a un problème, évidemment, il y a la prise en charge qui existe à Cheikh au niveau du sein, c'est exactement la même chose. On, cherche et si on trouve, on les renvoie chez Khadim. et là, elles auront une bonne prise en charge. Les résultats sont aujourd'hui alarmants euh, Alarmants, euh, disons, euh, je peux dire oui, oui, parce qu'il n'y a pas cette tradition malheureusement de dépistage. En général, les femmes, quand elles viennent, c'est un peu tard. Donc, du coup, on les reçoit à l'hôpital un peu tard. Ce qui fait que euh, euh, cette, initiative de, docteur, de, de euh, est une excellente initiative parce que ça permet de diagnostiquer à un stade précoce. Et lorsqu'on diagnostique à un stade précoce, ben, on peut guérir la maladie. Donc le cancer du sein, lorsqu'il est diagnostiqué tôt, peut être guéri. Le cancer du col, lorsqu'il est diagnostiqué tôt, peut être guéri. Maintenant, le problème, c'est que lorsque les femmes viennent à un stade avancé. Généralement, ces consultations masse souffrent de suivi est-ce que vous êtes prêts à Évidemment, puisqu'il <laughs> y a, l'hôpital Cheikh Ahmadou Khadim. Donc même en dehors de l'hôpital Cheikh Ahmadou Khadim, il y a les autres hôpitaux qui sont là. Il y a, il a Namatou, il y a Fauzeini, mais avec, particulièrement avec l'hôpital Cheikh Ahmadou Khadim, il y a le service oncologie radiothérapie. Donc il y a la possibilité de, traiter ces femmes parce qu'il y a la chimiothérapie là-bas, la radiothérapie. Donc euh, je pense que pour le moment, actuellement, on ne peut pas parler de, de euh, difficultés pour euh, la prise en charge, pour le suivi. alors, alarmante, je dirais qu'elle est alarmante, euh, c'est pas particulièrement à Touba, hein, c'est dans tout le Sénégal. Malheureusement, c'est dans tout le Sénégal. Donc, et Touba ne fait pas exception, ni Et comme je l'ai dit, il faut juste que l'information passe, qu'il y ait des initiatives de dépistage pour que les femmes viennent et qu'elle sache tôt. Et, euh, après, euh, la situation sera réglée rapidement. alors, en ce qui concerne le traitement de la maladie, l'État a déjà fait un gros effort. Il faut reconnaître que la chimiothérapie, actuellement, elle est subventionnée par l'État. Avant, elle coûtait des millions, mais actuellement, elle est subventionnée, ce qui fait qu'on a pratiquement une gratuité sur euh, la plupart euh, des, cancers gynécologiques, c'est-à-dire ce sont les femmes qui en bénéficient le plus. Donc, euh, la chimio, elle est gratuite pour les cancers du sein, les cancers du col et pour d'autres cancers, mais essentiellement pour les cancers du sein et les cancers du col. et par rapport à la radiothérapie, elle est également subventionnée. Vous voyez un pays comme la Côte d'Ivoire, la radiothérapie coûte dans les 3 millions. Ici au Sénégal, elle est subventionnée à 150 000 francs. Les étrangers payent 700 000. Donc vous dire que l'État a fait un gros effort pour cette prise en charge.